ahlu beyt seeni jébbalu jëfee ndigal mooy marchandise ma muy jaay loo ca jënd dalay lew doom yak waa kër ndey ak baay ba li nga ko jox rekk moom la lay dencal ba saa taxaw ni la am lii la la yàlla fay waa jënd jëndaale saw xeet jëndaale sa nijaay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 moom yóbbu ko waaye jàppoon na guddi gi àjjuma la onze bi Serigne Modou Kara waxoon te mu daje te moom lu mu wax lu ne day day barkeel ñoom ñu tàmbali ni la onze bi dañ koy def waaye nag njaboot gi daal ne lii daal war nañu koo yaasal boole ci murid yi yëpp kon ñoom bi ñu ko yaasalee boole ci murid yi moo tax moom jëwriñ mu ne ma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 nee na teewaayu alkayet Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nee na ba mu fi teewee euh, doomam ji di Ablaye Dieye doomam ji di président Ablaye dafa toog ci kanamu mbooloo mi mu bàyyoo ko doomoo ko kon wax jooju wax jooju da koy topp ba tey daf koy topp ba tey nag ndax euh, Ablaye ba mu jógee di ñëw Thiès nee na euh, président Ablaye bi mu jógee tey di ñëw cees général Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Nouré ni daf koo woo ni ko neel président Ablaye na fi jaar bala moo dem Thiès nee na mu woo Ablaye nee mu ne ko maa ngi nii doon tëj sama bureau ngir dem Thiès waaye nee na du ma jàdd fenn kër Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Nouré ni laay dem kon moom nee dafa jàpp ni Ablaye dafa am chance ndax ndax Euh, dafa am lu mu bëgg ci réew mi. dafa am lu mu bëgg ci réew mi. soxla ko ci dëkk bi. soxla ko ci dëkk bi. ñu toll foo xam ne. ñu toll foo xam ni. ñu bari samp nañ seen i ndënd. ñu bari samp nañu seen ndënd. waaye li ma wóor te ma ko. waaye li ko wóor te mu seede ko. général de Bamba bu ko woowee téléphone. général Bamba bu ko woowee téléphone. monsieur le maire la koy wax. nee na monsieur le maire de la koy wax. daaw le 11 novembre nee na daaw le 11 novembre ba tey. loolu li muy firi. ñun PVD. ñun PVD day dañoo am ndigal ànd ak moom ci élection locale yi ñu jëm. Euh, ñetti communes yëpp. ñetti communes yëpp. ñu am fa liste. ñu am fa liste. Euh, ba. ville moom mi Ablaye mu jiite ko. moom mi président Ablaye Dieye moo ko jiite. nee na commune est. mu jiite ko fa mu jiite ko fa itam. wax euh, docteur Djibril Sarr. ku ñuy wax docteur Djibril Sarr. jiite ko ci ouest. jiite ko ca Thiès ouest. Euh, ku ñuy wax usmaan Diop. ku ñuy wax Ousmane Diop. jiite ko ci nord. jiite ko ci fii ci zone nord bii ñu ne fii ñu toog ci la ko. Mhm. kon li fi nekk. li fi nekk. mooy euh, njaboot gi. njaboot gi. du ñaar benn la. du ñaar kenn lanu. te bëgg-bëgg général bëgg-bëggu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree nii. njaboot gi amuñ ci luñ ci sikki sàkka. njaboot gi amuñu luñ ci sikki sàkka. lu mu wax noonu la. bëgg lu mu bëgg mooy ngeen teel ko Ablaye mooy ngeen teel ko président Ablaye Dieye mii lii ñu jublu lii ñu jublu buñ ci am dara lu ñuy xalaat buñ ci am dara luñ ciy xalaat nañ ko jàppale nañ ko jàppale ba monsieur le maire boobu ba monsieur le maire boobu nga xam moom la ko sëriñ bi woowee nee na mu doon lu wér nag doon dëgg ndax kat euh, ñëpp taxaw di laaj dëkk bi ñëpp taxaw di laaj dëkk bi ku ne am nga ci droit ku am waaye dafay toll nag nee na jamono askan wi danoo war a yeewu nee na bu ñuy demee ba naan xat fàkka kabla nee na nañ na tekki jëng yi nit ñi libre kon nag jot na pour ñu defar gox yi defar gox yi nag. mu ngi tàmbalee ci ñuy laaj. nee na mi ngi tàmbalee ci ñuy laaj. balaa ngay laaj dëkk bi. balaa ngay laaj dëkk bi. da war a laaj sa bopp yow loo def ci dëkk bi. da ngay fexe nag yow première question mooy laaj sa bopp yow mii yett sa bopp ni lan laa def ci dëkk bi. te loolu dañ cee am yaakaar ci Ablaye ndax président Ablaye ji def na ko ci dëkk bii di Thiès fi muy daane la nag mooy élection yii. coalition ñu tudde ko coalition citoyenne ànd sigil Thiès. nee na su ko coalition citoyenne ànd sigil Thiès. lu toll ci ñaar fukki mouvement ak parti ak benn ñoo ci bokk. nee na lu toll ñaar fukki mouvement ak benn ñoo ci bokk. ba ñuy defar liste yi. la ba ñuy defar liste yi. Ablaye dafa ne euh, commune bu nekk. nee na Ablaye dafa wax ne commune bu nekk. nañ fa jiital jigéen. nañ fa jiital jigéen. moo waral moo waral. suñu sœur Mame Mbaye ñu jiital ko ci jigéen ñi fële ci est. madame la députée ñu dugal ko ñu jiital ko fële ca Thiès est. ci liste bi. nee na ca liste professionnelle ba. noonu la ñu tànnee aussi. noonu la ñu tànnee itam. Euh, aji jaata aji jaata. jiital ko fa ci ouest. jiital ko fële ca Thiès ouest. kon daal mbokk yi. kon daal nee na mbokk yi. lii may wax lii muy xam naa ne fii du place. xam naa ne fii daal du jotaayam. waaye. waaye. Euh, am na nit nu muy taxawee na muy taxawee. Euh, sampoo ko ci biir njaboot gi. ci biir njaboot gi. Eh, dafa am bésam boo boo ko amee. dafa am bis yoo xam boo ko amee nag. faw nga wane loolu. lii rek la lii rek la. moo tax bi nga nee ku baax ki danga ko bàyyi bàyyoo eh, laal nga ñu bari waaw man ak ñu ma bokkal yëg ni wuñ ay wax na ñun duñu détaillé sëriñ bi daal boo laalee ñoom sa kaw yàgg naa boo ko laalul jegewuñu fenn duñu jaay amuñu njëkk dara safuñu laa ko daqaar ak ceeb bu ñu yebbee bu am diwlin suuf suñu duy diwlin lañ yemale amuñu njëg amuñu njëg danoo am borom nangu ko danoo am borom te nangu ko amuñu njëg amuñu bëgg-bëgg duñu yëg dara dara lu Sëriñ Tuubaa képp Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul xam nga lu tax mu murit warul am complexe ci dara euh, dem retour d'exil Sëñ Tuubaa la ñuy waajal déwén dana dana yéeme cëy buñ ci mayee ndigal ñoo murit Cees yëpp koy ànd du bisu kenn ku dul Sëñ am amoo bis bi waaye ku demul dikkoo nooy amee bis wul jëwriñ ah? ah? am nga ci ku tey dafa am yoo xam ne moom dong ko am ndax yooyu balaa nga ko am faaw nga dem màggalu Tuubaa da ngay dem de waaye onze bi balaa nga koo am da ngay moo tax mu def ko onze onze waaw onze onze litre moom lay jël nii seen ñaari onze